asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di seen Barro TV man oustaz naa fekkoo ak sama loxo ndey jor ci nga xam ne mooy oustaz Waly Baax mm-hmm. ñu leen moom itam jërëjëf man da maa ngi nuyu ki nga xam ne mooy Thioly nekk ci Bilbao di nuyu ki nga xam ne mooy moom moom mooy mm-hmm. ma nga nekk ca ca Darango ak ak Samba mm-hmm. ak Malang Malang di nuyu bu baax a baax nuyu baax nuyu baax nuyu yàlla gërëm man nag may nuyu ki nga xamante ne mooy Omar la dibi ca Paris ci daara ah, donc yow itam ñu ngi leen nuyu di la siyaar yaak faana ñu ngi leen nuyu bu wér wér di nuyu Souleymane Sow suñu xarit bi suñu wëllëre suñu doomu day ci Allemagne du nuyu suñu ki nga xamante nii moom mooy solo bi nekk Gambien bi te mu nekk Allemagne suñu xarit waa ju baax du nuyu waa Gambie gépp ndax na Gambie dafa am goro nag. waaw yaa Gambie moom waaw Gambie Sénégal benn réew la. benn réew la bopp la kenn mënu ko xam. wallaahi benn réew la wallaahi may waa Gambie gépp. Mhm. du nuyu ñëpp ñu fa du nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew. Mhm. du nuyu nga xamante ni mooy suñu waa ji nga xam ne moo jógee Atlético Bilbao. wallaahi Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye nekk fii ci dëkk bi ñuy wax Koungheul ñu ngi koy nuyu mom itam di ko gërëm di suñu xel bu waaw ci Koungheul di ko nuyu waa Koungheul gépp vraiment di leen sant di leen gërëm wa du nuyu nag waagaan sen mom itam ñu xarit bi suñu wëla rek nga xay nak nday sant mom itam day umra mook soxnaam sax di xuja yàlla na yàlla teg ci yoonu jàmm waaw yàlla yàlla mën na ko te amin na ko yàlla def moom waagaan nak du nuyu Abou Bilal mom itam la la la borom la weer borom lawar weer lawar weer lay bañ mu nako la lawar weer mom moy li ko ak goon moom goon la bëgg ñu kay waxal waaw morom li kon borom goon waaye lawar weer mooy goon mm-hmm. fetal mooy link loor weer yow itam mooy borom linkoon di borom goon waaw jërëjëf mm-hmm. nice mm-hmm. kër gi joxtaan Sénégal moom daanaka toj na réew mi waaw ñoom ñoo war a toj réew mi nag yow itam ngénte bareetul ci réew mi waaw dëj moo fi ëpp ngénte waaw seetlu na kooku ak seetlu googu am naa ko ci dëj seetlu googu tant boo gis ci réew mi ab dëj la jigéen joo gis mu tokkol ca baat ba dëj la hmm? doom ju dootul ci réew mi ndax palaan ngi hmm? elew yaa ngi palaan ngi borom jabar yaa ngi borom jëkkër yaa ngi plané ñu am jëkkër ngi plané ñu amul jëkkër di plané élève bu demee bay plané ana élève ak plané waaw élève booy plané kooku naru jàmm naru jàmm naru salaam décision laalante la jël la jël am jëkkër ba pare am jëkkër ba pare di di plané tamit wóorul doy na waar ndax mën ngaa dem ñu laala ci àll ba ba doo doo ko yëg doo ko sa jëkkër mu ci xam ah? ah, mu doy waar la dafa yéeme de plané moomu nit ñaa ngi koy valoriser que yooyu di ko def mbir ah. waaye daal bëri lëf lu ci làqu lëfa ngi ci bëri na lëf lu ci làqu ci plan ndax xam nga ne ñi muy wax di nga xëye mu ñoom yi élèves yi waaw dingam dëkkoo di plan ni yow élève boo xam ne amoo jëkkër waaw amaa loo jëkkër waaw boo plan ni mooy yow da nga fas yéene laalante ba ba dee ankay ah, nañ ko wax wax ba ba dee loola nga nar yéen ah yow ak élève yow jàng war la dem ba am sa maîtrise dem am li nga war a am defoo ko ndax dem nan da ngay plan ne waaye c'est pas normal eh, yow li nga war a plan plan noo ko de wallaahi wallaahi yow sax xel mi nga woo fara fexe mu yaatu mu bikku waaw kay waaye boole naa tëj sama biir bi ah. te joxe sama sama sama sama sama sama ak lii ah, waaye daf nga loo xama doomeraam lañ daf nga loo xama daf nga yëfi xaj daf nga yëfi sowaas daf nga yëfi bon da nga gis léegi sax borom jëkkër joo xamante ni day jur benn doom na ay waaye man na njur mi dama cee sonn plan yi yow sonn nga ci jur bi te solo laalante waaw yow koy sonnal ci laalante da nga war a wax damaa sonn ci laalante ñu garabu laalante jox la ko waaye palaane te léegi nag ay brin la ñuy jël di ko bokk bokk lan moo liir yëpp bokk nañ leen liir daa waddate dëgg liir yëpp bokk nañ ay brin la ñuy def seen loxo loxoy fii yow doy waar dañ koy xotti roo benn affaire loolu laa looloo koy capturé. Euh, kon daal booy seet maniw góor yëpp ci seen bokk ñu ngi ko bokk. fii seen bokk ci maniw bi mën a ko wax. seetal ma li foog ngeen leen di ngeen ñu rey ñun. Sénégal yéen ñu rey di yi. dañuy dóor itam man de damaa ah, dóor da ngay wulli wulli bay bëgg kenn du ëmb. ah palaan leen li rafetul. nit bañuñu sorteel saranteel sa njur bañuñu ko. wallaahi waaye nag di planning tëj sa njur nag dootoo jurati. pour lan loolu kon foon wékk. yokk leen xeet ah, sa la lijjanti ba nga judd. waaw fexee leen de. wallaahi yi ngi planning. wallaahi yéen moom bu bon ngeen def yéen. waaw du élèves rek du élèves rek de. ak ñi nekk ci yi ah. ak informaticien yi nekk ci bureau yeeg. Ah, ñëpp a def. waaye yow ay entreprise boo xalaatee am na ñu fay palandi. seetal lii yow itam informaticien yi tamit dañuy. fépp fépp yow Sénégal ñaata millions d'habitants lañ duñu 15. bari nañ ñu bari nañ bari nañ waaw 50 lañ waroon doon waaye nag 30 yëpp a ngi ci foos yi. Hmm, ak planning bi. plan 30 yaa ngi ci beneen yi 30 yi ci foos yi. koroog laa tëjee foos. Hmm. di ko wiide man koroog damaa tiit. dama koo tëjee gonaay wër ma ay gone gone yaa ngi ca foos ma ma tëjaat ma ne wayow ñii ñoom ku leen jur ndeke dañ leen fa sànni ñoom ñëpp xoolal lii rek doomi raam ji man daal man jaaxal nañ ma ah, daal yu gars yi ne wax waaw seen i paquetu këppóot la yor rek ku ci wut li ngay wut ba pare rek daal la ruseet sut ba mu gërëm nga loolu doy na waar loolu war a njaboot gi nga gis ci ci foos sa njaboot lépp nga nga nga def ko ci poos loolu ñaaw na loolu nit koy def ñaaw na. xale yi daal ñu bari te fooy booy dañuy dund ci foos bi nag. ah nuñ fay tàngoor lañ tàngoor lañuy dundal. tàngoor lañ taw billahi boo fa sànni sa puso këpp boo yaa ngi naan noo tudd Momo. Momo cam tur xaj yooyu rek la ñu yor. tur xaj la ñu yor xaj nga yar kerk doon xaj cam imbécile man Momo ak Momo yooyu nu ko nit mën a tuddee la xaw man mel ni xaj mi mbaw rek. nag loo ci xamul Protek lu mu seer seen ñu jënd ko nag. dëgg mu yow Protek bu doon jar un million ñu wuti ko jënd. moo nañ gën jënd saako ceeb. wallaay ah waay loolu jar naa wax. doomi raami nag gaan gi sa cameraman bi taxaw woon cameraman bi taxaw gisoo sànq bi may may 1000 francs yi Moussa imbécile la ñaari protect la génn ci poos bi jaawale ko ñetti téeméer jaawale ko ñetti téeméer ma ne ko lii nag mu may bëlëfe naan ma CA 5000 la ma ne ko maa ngi ah, gis sonlay de CA 5000 ngay jolle protect waaw doomeeram catal lii rek ah ngëj Omar yëpp Omar xaj la de gu rëy Omar xaj la woo xamee moom itam fële ca Fass Mbao Omar mel pharmacie yëpp jeex ah, Omar Ndour Omar Ndour capote de lu fa ne jënd na Omar Ndour di xaj Omar xaj dëgg dëgg dëgg dëgg li faas mbaaw la jeexal li fa nekkoon ci préservatif mënoo ko fuuf jënd jël dem Sénégal nag Sénégal nag naaj pour nga gis fi jànq hmm. il faut nga xale ci xool ci xale yi 9 yi de bu dépassé 10 ans dootul fukki at la bañ xale bu ci meññ fukki at ah, chaque ween commencé sax ñu jàpp la rëtt ko ba mu set wécc planning sax boo gisee ñu koy def hmm. koo xamante ni jigéen wérul yoo xamante ni ay doomam daa jege koo xam ne dañ ne kii néew na doole loof na doom waaw ak njuur mi daf koy sonal waaw ñuur kooku la ñuy waay waaye da nga gis punkalum jeeg wu fees tepp mat li mu war a mat mu wóor na ni kii daa war di di jur mu mu bu tëj bi tutu njurukaay am na ñoo xam ne bañ a sëy nag bañ a sëy ay na ñoo xam ne bañ a maanaam dañ naan kër gi bëgguma fee njaboot waaw waaw am na doomee ram naa teel a récupéré xaalisu paa bi daan na fes moo tax duñu fa am doom xoolal jooju xalaat ñaan nañu yàlla jur fa njaboot xoolal jooju xalaat sëy da ngay ñaan yàlla jur wàllu ci kër gi wallaay wallaay mbaa ku ñëpp yi dégg wallaay wallaay ah waaye bok bok. ñëpp tée na kenn du judd waaw loolu ñu bok. bokk mën nga fee bokk wàllu ah bokk gi ñu bokk mën nga fee bokk ku baax mën nga bok. bokk ku la mënoon a teral ministre mën ngaa bok. président de la république bàyyi leen ñu ngeen bokk bàyyi leen brin yi ngeen rof imbécile yi yéen itam bàyyi leen li war judd na judd yàlla mi la sàkk ni la jural jural gënoo xam yàlla li muy def. xam na ko de système am xam na ko. xam na li muy def de. bu leen ñëw di pilmi kay yàlla di ko indi ay di a ko teg. gàtt nekk ci àdduna bépp lu mel ci sama biir bi day néew métteeg waaw damay def nii ak ñii ah, di cancer dama dara dama waaw dama dara panoog yëpp ay dama cancer dama jabet ak yooyu yëpp doom yaa ñuy naan la waaw parce que tamit man mi mu bari ci yaram tamit fu mu dugg mu ne la juróom jàngoro day nëb ay doom loo ci naan day yaram doom di naan na fuuf doom danga na fuuf ah, doom waaw mel ni dëmm Sénégal ke da bëri nay dëmm moom ah ay docteur fi kese lañ jigéen ñi bëri nay dëmm nekkatu ni dañuy naan nit waaw naani doom doom na ko fuuf naani doom lañ fi nekk ki nga ne ko fuuf lekk ko ci biir bi mu ne fa te am na yambar yoo xamante ni yambar yi bañ a joxe dépasse dañ naan fiis da ngay def palaane nga waaw doom waaw am na ci doomeeram yu ñaaw waaw boy boy boy Modou mu ndaw mi ak papa doy na waaw jëraat fii kat ak googa góor sarab nday góor mënu gëm googa waaw ah doo xam ne ñi yàlla mi leen fi sàkkal ne jox lu ñu lekk ak lu ñu naan yow moom imbécile bi sa baay bu defoon noonu di nga juddoo cam bàyyi leen joojo jaf wax ak joojo jëf loolu baaxul def leen lu baax bàyyi leen li war a am am te élèves yi te élèves yi naa la ci xamal leen élèves ñoo am na xaaj boo ñoo ci dàq laalante élèves yëpp te nag pour ñu ëmb pare xam nga tax duñu ëmb techniquement lañ techniquement am na doomi sew yu ñu yor ñoom li ñu leen jàngal tamit xam nga dañ leen jàngal xawma théorie am na nuñ ko waxee parce que bañ demee fee ca Gaston Berger waaw nga booy bañ tase loon booy bi étudiant la moom ci affaire kii sukkoon sino sino sino kolo xawma sino kolo la mbirum jigéen mbirum jigéen waaw king la ci mbaa king mbaa kay université Dakar la université waaw la waaw waaw université Dakar fàtte ma waaw xam nga punkal ma toll góor nga koy jàngal maanaam sexe jigéen di ko jàngal jigéen maanaam ni heure bi période tam ñoo ñooñu mooy jàngale nu laalante léegi nag technique boobu ñoom lañ xam. Hmm. léegi xam-xam biñ ci xam ci loola dañ saa ñu exploité ko ci li ngeen di jàngal pour ñu jëm ci fajaate léegi ñoom dañ ko mu utiliser di ko doxee di ko waxee. man de léeg-léeg ma téye as mbooy booy ndaw ci koñ bi. waaw léeg-léeg ma nappati ci su ma dugal sama néeg. déedéet kay wulee wulee wulee wulee wulee wulee wulee. boobi na ma père yi ma jóg ma may ko mu jóg mu xëcc benn doom naan. déedéet am loolu bu tudd suuf ma ne ko léeg-léeg mu mun ma bal perdi la Eh. ma ne ko yow yàq nga sama njaboot bi. bal perdi bal perdi. <laughs> yéen ay doobee am ah. ay xaj lañu. ah waaw yow. bari na si sam bal perdi am na am na. nga boo dóoree. Hmm. mu war a ëmb. waaw dañuy naan benn doom bu sew. mu def ko ndox mu ne butt wadd. Hmm. muy bal perdi ñu fer ñu falanku ne la. léegi nag yow sa doo doolay jeex. Ayo dëkk da ngay non damay sonn waaw da ngay sonn damay sonn kër Mbaye Fall dafa am dara iya, amu fa iya, kër iya. Mbaye Fall bari na du kër Mbaye Fall kese da ngay kër Mbaye Fall fépp la mbir mi kay daal la jàmm gën ak Malika ma dëkkal maa bari kan ak kan maa bari caga te seet amul seet quartier suñu seet quartier kuy jaay caga Hmm. xefe xif mu lan la. nga ni maa la xamal ni xefe mu ne duut Matar Diallo Matar. Hmm. Matar Diallo de mu ñëpp ko xam ci loolu. ah waaw Matar moom doy na waar de. doomi raam laa yor. ah waaw yow sa kàcce doy na waar de. doy na neel doomi xaj nga naan doy na ah, waar. ah kii ay sowaas la kii ah, sowaas ah nga nag. Matar sowaas kon nag ngeen xam ne lii yëpp tamit ay mbir la yoo xamee xew na fii ci jamono ji xew fii ci Sénégal gi ñu ne woon nañ leen ko wax ci lu xew tey bu ko defee nag émission bi ñu ne itam ñu yemaloo ko fii ba beneen yoon ci yeneen jëmmi jamono insha allahu wasalaam wasalaam wasalaam jërë ngeen jëf jërëjëf waaw baax